Mark ñeent. booba nag saraxalekat yu mag ya ak xutbakat ya ñu ngi doon fexeel yéesu ngir jàpp ko reylu fekk booba ñaari fana des ci màggalu bésu jéggi ba ak màggalu mburu ya amul lawiir kon nag ñu ne bu doon ci bisu màggal bi ngir yëngu-yëngu bañ a am ci nit ñi bi nga xamee ne yéesu nekkoon na dëkku betani mu dem këru simon ma gaana woon di fa lekk noonu jigéen ñëw yor njaq lu ñu defare doj wu albaatar njaq li def la ju raxul ju ñuy wax naar tey jar lu bare bari jigéen ji toj njaq li tuur laj ci boppu yeesu amoon na fa ñu mer di xult ci seen biir naan yàq gi lu muy jariñ mëneesoon na jaay laj ko leen ji ci lu tolloog peyug atum lëmm jox ko miskin yi noonu ñu daldi gëdd jigéen ji waaye yeesu ne leen bàyyi leen ko defal na ma jëf ju rafet lu tax ngeen di ko sonal miskin yaa ngi ak yéen bis bu nekk te man ngeen leena a dimbali saa su leen neexee waaye du ngeen ma gis ba faw jigéen ji def na li mu man diw na sama yaram ak laj koleñ ngir waaja sama rob laata moo jot ci dëgg maa ngi leen koy wax fépp fu ñu yéene xabaar bu baax bi ci àddina sépp dinañu fa fàttali it li jigéen jiy def ca waxtu woowu kenn ci fukki taalibe ak ñaar ku tudd yuda iskariyo dem ca saraxalekat yu mag ya ngir wori yeesu bi ñu ko déggee ñu am ca bànneex bu rëy dig ko xaalis noonu mu fexe jamono ju mu leen mën a jébbal yéesu bés bu jëkk ca màggal ga ñuy wax mburu ya amul lawiir taalibe yéesu laaj ko foo bëgg ñu defaral la reeru jéggi bi bés bu jëkk booba nag mooy bés ba ñu farala rendi xaru màggalu jéggi ba noonu yeesu yebal ñaar ci taalibe yi ni leen demleen ca dëkk ba foofa góor gu yenu njaq lu def ndox dina taseeg yéen ngeen topp ko kër gi mu dugg nag ngeen ni boroom kër gi kilifa gi nee na ana néegu gan bi may lekke reeru jéggi bi man ak samay taalibe dina leen woon néeg bu féete kaw te yaa ñu defar ko ba lépp jekk foofa ngeen nuy defarale reer bi bi mu ko waxee taalibe ya dem ca dëkk ba gis lépp ni leen ko yéesu waxe woon noonu ñu defar reer bi bi nga xamee ne timis jot na yéesu ñëw ànd ak fukki ak ñaar ñu toog di lekk bi ñuy lekk nag yeesu ne leen ci dëgg maa ngi leen koy wax kenn ci yeen ku bokk ak man di lekk sax dina ma wor taalibe yi nag am na xar ñu daldi ko ne kenn kenn mbaa du man mu tontu leen kenn ci yéen fukk ak ñaar la kuy cappandoo ak man ci ndab li doomu nit ki mu ngi dem ni ñu ko waxe ci mbind mi waaye ki koy wor dina torox bañoon a juddu moo gën ci moom noonu bi ñuy lekk yeesu jël mburu sant yàlla jox leen ko naan jël leen lii sama yaram la ginnaaw loolu mu jël kaas sant yàlla jox leen ko ñépp naan ci mu ni leen lii sama deret la di fas kóllëre gi te mu tuuru ngir ñu bari ci dëgg maa ngi leen koy wax dootuma naan gannaaw tey ndoxum reseñ mii ba kera ma ciy naan bu bees ci nguuru yàlla noonu ñu woy yàlla ba noppi génn dem ci tundu olivia booba yéesu ne leen yéen ñépp dingeen ma dàggeeku ndaxte bind nañu dinaa dóor sàmm bi xari jur gi tasaaroo waaye bu ma dekkee dinaa leen jiitu ji galile kon piyeer ne ko bu la ñépp dàggee man duma la bàyyi mukk waaye yeesu tontu ko ci dëgg maa ngi la koy wax guddik tey balaa ginaar a sab ñaari yoon dinga ma weddi ñetti yoon waaye piyeer gën a sax ca la mu waxoon naan boo xamee ne sax dama war a dee ak yow duma la weddi mukk taalibe yépp it waxe noonu noonu ñu dem ci barab bu tudd Setsemaane Yeesu ne taalibe yi toog leen fii ma dem ñaan ñaani mu ànd ak piyeer saak ak yowaan yowaana daldi jàq ba xonet mu ni leen sama xool dafa tiis ba ma bëgg dee toog leen fii xool noonu yéesu dem ci kanam tuuti daanu ci suuf di ñaan ne waxtu wi teggi ko bu loolu mënoon a am mu ne abba baay bi yow mi dara tëwul teggil ma kaasu naqar bii moona bu mu doon sama coobare waaye na sa coobare am noonu mu dellusi ci taalibe yi fekk ñuy nelaw mu ne piyeer simon danga nelaw amuloo sax doolay xoolandoo ak man benn waxtu xool leen te ñaan ngir bañ a daanu ci fiir seen xol jag na waaye seen bind woyof beneen yoon yéesu dem di ñaane noonu dellusiwaat fekk leen ñuy nelaw ndaxte seeni bët dañoo diis xamuñu lu ñu koy tontoo ñetteelu yoon mu dellusi ci ñoom ne leen yéen ngi nelaw tey noppalu ba tey jeex na waxtu wi jot na ñu ngi wor doomu nit ki ci loxooy bàkkaarkat yi jógleen ñu dem ki may wor a ngi nii di ñëw bi yéesu di wax yudaa mi bokkoon ci fukki taalibe yi ak ñaar agsi ànd ak mbooloo mu bari mu jóge ca saraxalekat yu mag ya ca xutbakat ya ak ca njiiti xeet wa te gànnaayoo yi ak yet fekk ki ko naroon a joxoon na leen tegtal ne leen ki may fóon moom la jàpp leen ko yóbbu ko te wattu ko bu baax noonu mu ñëw ci yéesu ne ko kilifa gi daldi ko foon bi mu ko defee nit ñu song yéesu nag jàpp ko waaye kenn ci ñi fa taxaw boo ci jaaseem dóor surgaab saraxalekat bu mag bi nopp bi dagg yeesu ne leen jóg ngeen ngir jàpp ma gànnaayoo jaasi ak yet mel ni ñuy topp sàcc mën a daan naa toog bés bu nekk ca kër yàlla ga di jàngale te jàpp leen ma waaye lii am na ngir mbind mi am ci kaw loolu ñépp dëddu ko daw fekk amoon na ca waxambaane wu lëkkaayoo woon sër topp yeesu ñu daldi ko jàpp waaye waxambaane ma wàcc fa sër bi daldi daw def yaramu neen ñi jàpp yéesu yóbbu ko ci saraxalekat bu mag bi te foofa la saraxalekat yu mag yi njiit yi ak xutbakat yi yépp dajaloo piyeer nag topp ko fu sori ba ci ëttu saraxalekat bu mag bi mu toog fa ak alkaati yi di jaaru ci taal bi noonu saraxalekat yu mag yi ak kuréelu àttekat yi yépp di wut ku mën a seede lu daan yéesu ba ñu man koo reylu waaye gisuñu kenn teewul sax naa feq ñu bari ñëw seede ci yéesu lu dul dëgg waaye seen seede ànduñu ba mujj naa feq taxaw seede ci moom naan nun daal dégg nañu mu ne dinaa toj kër yàlla gi loxo nit liggéey tabax ci ñetti fan geneen gu nit liggéeyul waaye ba tey seeni wax ànduñu ci kaw loolu saraxalekat bu mag bi taxaw ci seen kanam ne yéesu doo tontu lu la nit ñi di jiiñ waaye yeesu tontuwul dara ne cell saraxalekat bu mag bi dellu nag ne ko ndax yaa di almasi bi doomu yàlla ju tedd ji Yeesu tontu ko moom laa te dingeen gis doomu nit ki toog ci ndejeeru aji kàttan ji di ñëw ci niiri asamaan bi ko saraxalekat bu mag bi déggee nag mu daldi mer ba xotti ay yéreem naan weddi na yàlla lu nu doyati seede lu ngeen ci xalaat noonu ñépp teg ko dee ci kaw loolu ñu daldi tifli ci moom takk ay bëtam di ko dóor ay kurfeñ naan ko yow wax nu ci kàddu yàlla ku la dóor ba noppi alkaati yi teeru ko ak ay pes piyeer nag ma nga toogoon ci ëtt bi féete suuf noonu benn mbindaanu saraxalekat bu mag ba romb fa mu gis piyeer di jaaru xool ko jàkk naan yow itam àndoon nga ak yeesu nasaret moomu waaye piyeer weddi ko naan xawma li ngay wax dégguma ci dara mu daldi génn dem ci buntu kër ga foofa nag mbindaan mi gisaat ko mu ni ña fa taxaw waa ji ci ñoom la bokk waaye piyeer weddiwaat ko nees tuuti ña fa taxaw ne piyeer yow mii de ci lu wóor bokk nga ci nde waa galile nga waaye piyeer daldi giñe ko naan xawma nit ki ngay wax ci saa si ginaar sab ñaareelu yoon noonu piyeer fàttaliku li ko yéesu wax balaa ginaara sab ñaari yoon dinga ma weddi ñetti yoon mu daldi jooy jooy yu metti